jërëjëf mbokk internetu Sénégal Buzz 221 mbokk yi di am mbégte ak kontaante bu baax a baax a baax jàkkaarloog yéen fii ci Sénégal Buzz 221 euh, nu ñu koy defee ak yéen rek saa ne di leen daralal ay ndaanaan wala ay kilifa yi nga xamante ni yéen a ngi leen di bëgg gis fii à travers Sénégal Buzz waaye ni ko noonu tey la ñu dalal ndaanaan loo xamante ni yàgg naa bëggal Sénégal yàgg naa yóbbu drapeau Sénégal ci li nga xamante ni nag moo di mbégte ak fierté di sama sista dërëm tey nag moom laa dalal fii ci Sénégal Buzz 221 fas yéene séq ak moom li nga xamante ne moo di waxtaan dama koy bàyyi rek mu ndekk mbokk internet yi sista maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar maa ngi lay fay rakku jàmbur am mbégte kontaan rek jàkkaarloog yow tamit eh, ak eh, ñi nga xamante ne ñoo la safoo internet yëpp góor jigéen ndaw bàyyuma kenn kilifa aada kilifa diine bàyyi ma kenn képp koo xam ne ku foo nekk rek di bëggee eh, Sénégal Buzz 221 rek dërëm nee na la jàpp loxo di la nuyu sama rakk ji macha allah dërëm nee na la jàpp loxo di la nuyu waaye ni ma koy faral di defee saa su nekk ak samay activité yaakaar naa ni ñëpp ñi nga xamante ne ñoo di soppe ak fans yi ñoo tax lépp loo xamante ne nag yéen koy liggéey ngeen koy sentir euh, ça fait tey nga jàkkaarloo ak ñoom yan kàddu nga yëkkati ci fans yi ak soppe xanaa euh, euh, kàddu cofeel mm-hmm. di wax ne saa yu ma xëyee rek lu leen bëgg rek ci lay dox mm-hmm. cofeel mbégte di leen gën a bëgg rek ndax saa yu soo xëyee mm-hmm. ah nga romb loo moomul fu la nit bañee am na koo fa soof fu la nit bëggee am na koo fa koo fa bëggul di sant yàlla nag ci ñenn ñi nga xamante ni dañoo bëgg ba amuñ ci ñun sago di leen ñaanal jàmm di sàkku ci ñoom ñu ñaanal ñu jàmm di wax ne seen jàmm rek mooy suñu jàmm te lu leen di bëggee rek ci la ñuy dox te ci la ñuy wax lii laa leen waxal yéen internet yi safoo dërëm uh-huh. te di ko suivre macha allah muy kàddu yu am solo waaye ma dooree ak moom rek ci li nga xamante ne aussi si la ko sénégalais yëpp gën a xam euh, mu di animatrice bi nga xamante ni tey moom nga taxawee laata loolu amoon nga beneen euh, facette boo xamante ne euh, taxawoon nga ko ak sénégalais muy actrice bi nga xamante ne yaa ngi ko doon joué ci série yi mm-hmm. euh, tey bu sénégalais yi bëggoon a xam naka la dërëm def ba dugg ci li nga xamante ni moo di milieu bi euh, ban explication nga ci jox sénégalais bu simple rek boo mm-hmm. xamante ni dafa ñëw naturellement mm-hmm. euh, mu nekk loo xamante ni bi ma gën nekk jeune dama bëri woon kersa kersa googu nag daf ma daan poussé sax du ma xool nit dama dem pour ma xool nit ci bëtëg sax problème la léegi nag sama benn prof musique Ndene Faye Eh, bi nekk bi bi nekkee Ibrahima Thiaw CM mhm. Ibrahima caw mhm. moom moo mu ne soo bëggee kersa bi dañ da ngay da dem defi théâtre mhm. après nag euh, suñu semaine culturelle jot ñoom ok su ñëw ak démb bi si laa gis démb bi wax ko ko euh, démb bi ba maanaam 12 ans démb bi ne da ngay ñëw déggoo si répétition yi léegi chaque 4 heures damay dem di répéter xam nga nag ma nekk ci tur bu ASC bi. Uh-huh. ASC jant bi jant bi. ñu nekk ci tur bi nekk ci tur bi dem nañ ay régional dem départemental amul joué bu ñu joué wul mujj gi. Uh-huh. de euh, ma intégré ci troupe bi euh, ñuy dem école Sénégal yëpp. Uh-huh. dañ koy wër. daan def théâtre di def sur scène. xale yi di fay ticket 100 francs. ticket fukki dërëm. ak démb bi ma di ko def ma def ko partout nag. après nag si laa doog nag. jànge fa théâtre jàng fa fecc bale dama daan fecc bale damay woy kër lépp loo xam ne daal aar da koy laal rek man boo ma ci coupé ma fay la te démbee ma ko la ko jàngal ñu koy ñaanal bu baax a baax suñu papa jooju yàlla na ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana waaye aussi ah, beneen tur boo xamante ni sénégalais yi aussi bëgg nañ xam fan la jógee donte na man xam naa ko mhm. waaye ñeneen ñi nga xamante ne ñoo ñuy bàyyi xel bëgg nañu xam euh, la nom de dërëm fan la jógee parce que tur la boo xamante ne sénégalais ñu ngi koy foowee garaaw na mais fi mu jógee la ñu bëgg a xam fi mu jógee moom c'est simple dafa am sama xarit bu uh-huh. bakar Mari Mbay borom maam yi ci Gorée hmm. ko nga xam ne maamam moo njëkk yett gaal muy songe Diouf ne waa Gorée yéeg leen ñu dem boobu salop amul kooku bu jëlee micro ni ma demal wax uh-huh. yaa ngi talent bi yaa ngi voix bi uh-huh. ma euh, munuma ma dërëm laa la tuddee fekk bubs bu jigéen lañ ma doon woowee bopp si bu jigéen. moom ci boppam euh, mu mu ama moo ma daan jox caravane yi may animé affaire yooyu. su mu caravane amee daf may woo téléphone rek dama utal équipe dóoral mu daanu. su laajee sabar ma wut sabar su laajee musique ma dem ak musique bi. su ma ñëwee mu fay ma. Euh, benn jour ma ma ma def euh, ma fii nii foire Dakar. mu yóbbu ma ci benn boutique boo xam ne maa fi di def promotion daal. boutique ba luy jar 15000 amu fa. maanaan loo laal dërëm loo la laal dërëm léegi nag moom uh-huh. ku dem rek ne ko dërëm a ngay toj pavillon <laughs> orange de uh-huh. dërëm a ngay toj pavillon orange mu daal di ñëw ma dem seeti ko boobu mun ci kaw uh-huh. TFM lañ defoon ci foire bi ci kaw munu ma mainteniral dërëm bu DJ Boubs parce que dërëm bi am na buzz parce que ñi ma fekk fi yëpp waxuñu ma Boubs bu jigéen dañ ma dërëm a ngi toj rukk ba loolu moo waral dërëm dërëm bi nag uh-huh. su ñëwee ma ne ko waa dërëm pourquoi dërëm ndax dërëm ndaw na mu ne ma dërëm uh-huh. li tax ma tuddee la dërëm loolu egseegul uh-huh. bis bu egsee dinaa toog explique ko Sénégalais comme képp koo xamante ne gis nga Boubacar Diallo soo ko laajee moom dina la wax lan moo waral dërëm bi lan moo waral dërëm moom moom ma ko tuddee séeri maam Diarra wallaay Baye Ziz Junior sama xarit te tey laa ko gën a mën a gërëm ndax li may wax ne nit ku la wutal liggéey teg la ci yoon mhm. kooku mënoo ko fay rang bi sa ndey ak sa baay nekk foofu nga koy teg parce que Boubacar sama frère la mhm. sama xarit la dañuy waxtaan si lépp sama xarit macha allah muy kàddu yu am solo di nuyu bu baax a baax au passage grand Boubacar Diallo moom it waaye di ko jaale rek di ñaanal waajuram bu góor boobu su génn àdduna yàggul dara ñu koy ñaanal suñu borom yërëm ko te xaaree ko àjjana. waaye daa baax rek di wax ah ndax ah, loolu mu seede ci Boubacar Diallo ñu nit bu ñu dee gor mën nañ ko seede ci moom ndax it bu ñu nit ñi xamee wala ñu am lenn loo xamante ne am nañ ko ci taxawaay ci micro moom it bàyyi na ci waar bu baax a a baax ndax bokk na ci ñu ñu dooleel yokk fit ak jom ñu koy nuyu bu baax a baax a baax di ko gërëm waaye aussi Euh, ñu dugg ci li nga xamante ne aussi système moo di actualité bi waaye actualité bi mooy euh, ku ne dërëm ne TFM mhm. nga def fa liggéey bu am solo boo xamante ne ba tey jamono ji Sénégal yëpp naw nañ la si euh, sa parcours biir TFM suñ la ko doon laajtee loo ci expliqué parcours bu neex mhm. bu naturel bu simple TFM mhm. c'est une famille pour mooy sama deuxième famille samay frère laa fa nekkal samay nijaay ak samay rak ak samay mag. Mhm. Euh, Boubacar Mari Mbaye ba mu yëkkatee sama loxo teg ko ci Njaga Nduur mhm. Njaga daf ma jàppee comme rakkam Abi mhm. dara ñaawul te dara du ñaaw. comme parcours bi méttiwul. talent la laaj. ak ngëm-ngëm ak passion te ñett yëpp a ngi si man. talent bi jàngi naa ko ba am ko. gëm-gëm bi mi ngi ci man sama passion la. su ma ko deful sax damay mel ni ku feebar. damay mel ni ku lu ma neex la ko téye micro di défulé wu. te e, instant yi ma ko doon defee instant yooyu sax dama ko soxla. Mhm. parce que instant yooyu maa ngi ci problème. Mhm. sama jëkkër gaañu. Mhm. stress bi ak xale yi. mais instant yi ma buubakat di yóbbu ci njaga boobu soxla naa ko. parce que man dugguma fa woon pour xaalis dugguma dama duggoon pour défilé wu. parce que sama passion la. ma def fa nag sénégalais yi nangul ma ko. macha bëgg ma lool ba tey nii sax. damay dugg ci samay commentaire damay nii man lan laa ji sénégalais yi. ñu may waxal lu baax di ma def ay fleur man daal aw ma seen fay internetu Sénégal gépp nag képp kull ku ne Sénégal Mali France ba États-Unis mhm. aw ma seen fay di leen bégal rek te yaakaar ne lépp lu may def suba ba ngoon lu leen di bégal lay doon parce dañ maa bëgg parce dañ laa bëgg waaye mbëggeel googu yaa ko liggéey seen kanam mais aussi actualité bi ma doon wax eh, gis mhm. nañ euh, bu ñu nee TFM foofu laay insister taxawaat ca ndax it mhm. euh, fan yi gis nañ actualité bi nga xamante ne mi ngi daw biir TFM koo xamante ne aussi mën naa ni sa patron daan liggéey yéen ñaar liggéey bu am solo muy Kouthia récemment dégg nañ euh, coow li nga xamante ne aussi am na fa ba ñu bëri dégg ni euh, Kouthia génn na biir TFM démissionné en tan que élément Kouthia en tant que élément biir TFM bi nga déggee loolu nu mu la def ak lan nga ciy wax sénégalais. defuma dara parce que Kouthia. <laughs> TFM famille la. Mhm. munul bàyyi TFM Kouthia mooy TFM. Mhm. Kouthia mooy TFM. Mhm. rumeur boobu dégg nañ ko fi déggati ko fi. Mhm. jusqu'à preuve du contraire ni ma ko déggee noonu nga ko déggee mais man gëmuma ko. Mhm. Kouthia. TFM mhm. moom mooy TFM. moom mooy TFM moom mooy TFM. Kouthia moom mooy TFM pour te dire sax mooy directeur ba. comme kooku mënul démissionner ay kii la nii rek xam nga tamit seen moo ko internet yi lu ne la ñuy wax. Uh-huh. mais Kouthia. Uh-huh. munul bàyyi TFM TFM mënu ko bàyyi ndax moom ci TFM la bokk. kilifa la fa. responsable la fa ku bëgg ñëpp la ñëpp bëgg ko. comme TFM famille la pour Kouthia. di mhm. euh, jóge foofu. coow yi nga xamal aussi moo waral ñu ne dafa démissionné ci kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko. Mhm. ngir sensibiliser euh, rek mais du TFM ci diine ji ak ni ñu ko war a doxalee ci li nga xamante ne moo di weeru koor euh, kàddu yooyu mu yëkkati nu mu la def ak nan nga ci jànge gis-gis la rek ku mhm. nekk am nga droit wax comme yow ko moom ak keneen. gis-gisam la wax. nañ ko jàppalee gis-gisam rek gis-gisam la daal. comme mun ma ko contredire parce que sa kilifa sa kilifa la Kouthia sama kilifa la. Mhm. sama frère la li ma la mhm. waxoon TFM famille la. Mhm. famille nag kër gu mag li fay am xam nga ko. yow ñi nga bokkal ndey ak baay sax tey yenn saay ngeen am ay kii. bëñ ak làmmeñ ñoo ànd dañuy mettante ba mu dàgg. mais après dañuy àndaat. liggéey baax ko laaj comme TFM euh, Kouthia. am gis-gisam la wax. keneen tam am nga droit wax sa gis-gis. amul dara lu ma ko ci tegal amuma dara lu ma ko ci kii. ni ko Sénégalais kilifa la fa daal kilifa fa mais ni Sénégalais gisee ni jàpp ne démissionné na carrément yow ndax loolu gëm nga ko ci ni nga xamee Kouthia ak ni mu mel biir TFM. gëwuma loolu. Mm-hmm. Kouthia mooy TFM. mooy TFM. Mm-hmm. Uh-huh. gëwuma ko. Mm-hmm. jusqu'à ba ba may gis sama bët gëwuma loolu. parce que Kouthia mooy TFM TFM mooy Kouthia. Kouthia du bàyyi TFM parce que moom moo toog wax ko àdduna yëpp dégg ko. Kouthia moo toog wax ko. moom mooy TFM. moom mooy TFM actionnaire la moo fa jiitu te moom lépp loo xamante ni mm-hmm. un bon exemple la Kouthia moo ko war a joxe foofu comme gëwuma loolu. gëmoo ni moom wa dina comme ni mu Sénégal amee rek gëmoo ni démission bi yow. kon ko ba parce que def ña bi mooy ñaata yoon. bari na yi ñu fi compté ne Kouthia démissionné na de. voilà comme loolu la rek. nii la rek après day ñëwaat. <laughs> est-ce que nekkul daa banque. ah loolu de yaa ko tudd. <laughs> est-ce que bëggul ñu woo ko ci kaw. mën naa nekk Kouthia moom Kouthia la rek. li mu doon daf ko moom daf ko uh-huh. mën te daf mm-hmm. nekk professionnel. Mm-hmm. nekk na professionnel nekk ku baax. Mm-hmm. ku koo xamante ne alalam du ko boole kenn. man mi ba léegi nii. fu ma dajeeg moom dama koy daaneel. damay tàllal ni ko kaay paas mu yëkkati jox ma. comme baax rek laa ko xamal ak yaatu ak tabe. lu mu am jaam yàlla yi la ko bokkal comme Kouthia mënu maa wax lenn ci moom lu dul kilifa la. gis-gisam lay wax moom kilifa la kon li gaa yi di wax dëgg la Youssou bëggul kenn ku mer parce que gars yi bu ñu mm. bëggee mer rek ne mu woo dem ci ruq dëgg la mm. parce que nee la xam nga bu doon société la ku mm-hmm. démissionné dañ lay bàyyi nga dem mais famille la mm-hmm. tey famille yow ci famille bi nga bokk mm-hmm. soo meree say mbokk dañ lay bàyyi nga dem dañ lay woo ruq mën a kan ñu waxtaan hélas bu ko defee nga delluwaat intégré ci famille bi famille la TFM nekkul euh, comme société yeneen yi famille la famille la famille bu suudewu sax boo xam ne mhm. liggéey rek la ñu gëm mhm. travailler toujours travailler et encore travailler ah. yaatal rek ah. macha allah plateau yi am solo yi nga xamante ni aussi euh, yéen a ngi koy def sénégalais yëpp ñu ngi leen ci félicité di ci kontaan bu baax a baax a baax waaye euh, du ñàkk aussi ma dugg ci point boo xamante ni bu ma toogee ak yow dinañ ci wax ngeen bokk kër gi. Mhm. Euh, di liggéeyandoo suñu borom teg ko tawat muy njaay. Mhm. feebaru njaay métti sénégalais yëpp. Mhm. ñu koy ñaanal suñuy borom saafaral ko bu baax a baax a baax lan ngay mën a wax ci njaay. donte na yéen ñaar am nga lu ngeen def ak fu ngeen jaar. macha allah barki Dembo Njaay rek seeti naa ko dem naa ba kër ndax sama xarit la daawul toog deux semaines te ñëwul fii ak ay doomam. li mu feebar sa yéex naa ko yëg. Mhm. danaan def saa yu rombee otoom rek. Mhm. day taxaw ci bunt bi dara moo di woy koñ mhm. bi yëpp naan njaay ñun. mu dugg mu toog ñaari weer dégguma ku ne dara moo dara après ma daal di koy woo téléphone. mu ne ma damaa feebar. ma ne ko feebar. mu ne waa ma ne ko ah lu la war a dal njaay pour man feebar bu ndaw la ma bàyyi noonu après ma déggaat dafa feebar ma jël mhm. sama tànk dem këram. Mhm. seeti ko. mais mu ngi sant ba démb démb woo naa frère mhm. ni ma mu ngi sant yàlla. comme nañ ko ñaanal ñun ñëpp rek yàlla teggil ko natt boobu. ba mu dellu si waat ci ay activité ndax sénégalais soxla nañ te ku ñu bëgg la mhm, mhm. loolu daal laa mën a wax si moom ndax nit ku baax la yàlla muy teg nattu nag moo ko teg te ñu ngi koy ñaan moom yàlla mhm. mu teggalal ñu ko suñu njaay boobu nga xamante ne suñu frère la suñu lépp la mu dellu si waat ci ay activité euh, analyse bi ngeen ci sénégalais yu bëri di def euh, jàpp ni tey li ko dal mystique la loolu tey boo ko déggee sénégalais di ko wax te nga xam njaay euh, ban explication nga leen ci dolli mystique du def loolu. Mhm. feebar la feebar la. Mhm. Mhm. li ko dal feebar la bu yàlla di tegoo natt comme jaam yëpp. li li li benn mag doon wax nee na dafa am benn kilifa. mu toog ñetti weer feebaru. mu jooy ne lan xanaa yàlla daf ko fàtte. jaam bi nag bala moo xam ne yàlla fàttew ko. parce que luy tooy day kii. mën nga yow lu la xos rek ñu ne mystique la. xanaa mystique comme mooy yàlla. ñun léegi Sénégal dañu bëgg a jël à la place de yàlla teg fa mystique mhm. mystique mënul yëpp de yenn yi ñun la mhm. feebar force day am yàlla daf ko tëggaale ak ñun te daf ñu koy teg mhm. te kum ko teg nanga nangu te gëm ni yàlla kese la yàlla rek moo fi nekk mhm. te yàlla moomu la ñuy ñaan mu teggalal ñu ko suñu njaay ba mu dellu si waat suñuy loxo di ñu bégal comme ni mu ñu doon bégalee mhm. gëw ma loolu du dem naa fa mhm. ndax dem nga fa ñu koy ñaanal bu baax a baax a baax suñu borom fëgg boppam ba mu dellu ci ci ay yitteem moom njaay waaye aussi beneen point boo xamante ne xam naa duma ci yàgg ak yow rek euh, naka nga gisee euh, yaatal nga xamante ni TFM bi koy def gis nañ yeneen recrute yi nga xamante ne yéen a ngi koy def euh, jël ay ndaw ay élément ne ci biir télé bi di ci liggéey di bay seen waar loolu ca lay la borom moo ne foofu nañu yaatal parce que man mosul toog mosuma toog mu toog wax ko. Mhm. mais toog naa dégg ku ne moom moo ne. Mhm. ñoom ña fa ne nañu yaatal. man maa toog dégg beseel baa sama xarit boobu nga xamante ni. Mhm. tubaarkàlla macha allah baax bëgg ma di ma teral di teral nawleem. beseel kenn du moom ci man. day jékki-jékki sax gàddu benn yére eh, saagu yére ne ma dërëm yi dañ ma ko yónnee ëpp daf ma ëpp am. comme Bessél kenn du moom ma toog ci télé bi dégg mu ne. benn jour Youssou Ndour da leen woo réunion. ne leen nañu yaatal. yaatal googu nag nee na TFM ku fi bëgg a yàgg na nga yaatal ci yaatal googu lañ nekk rek moo tax ñu yokk karmi xar bi karaw pour gars yi mën a gën a bég parce que ku nekk TFM mën nga indi sa tous pour gars yi gën a bég parce que lu leen bëgg rek moo ñu ñor ñun ci la ñuy dox suba ba ngoon lépp luy bégal askanu Sénégal Gambie Mali Afrique yëpp rek. Mhm. ci la TFM di dox. ci la TFM di dox. Mhm. dërëm ak li nga xamante ne aussi moo di seetu bi ndax it plateau yi nga xamante ne yaa ngi koy def ci seetu bi mhm. Dakar na doon euh, la de. maa ngi fi te seetu bi chaque lundi maa ngi fa. Dakar na door paali ko handicapé woon ñëpp xam nañ ko. muy corona bi. corona bi nga xamante ne. Euh, mbas la natt bu yàlla wàccee si ñun. ñu nangu ko lool nag. ndax yàlla soo nangoo lim la teg. mu teggi ko ndànk. boo nanguwul mu doole te doo ci man dara ndax mooy maye mooy xañee te moom moo ñu ko tegoon moo taxoon mu mu arrêté mhm. ndax dara amatul woon dara yëngatul woon mhm. mais ba tey nii Dakar na door pa mu ngi fa mu ne woon mhm. la woon fa woon rek dañuy delloo mbatt bi fa ndaala rek ku neex tànk Dakar na door pa seetu bi tous les lundis maa nga fa yaa ngi fa lundi bii rek liggéey naa te lépp lu ma fay teg luy bégal sénégalais yi la euh, sollicité wax ci musique sénégalais. Mhm. divertissement. Mhm. ak tendance. génne li xew. Mhm. ñu wane ko loolu mooy seetu Sénégal. yére bu xew daal bu xew greffage bu xew dërëm war a ñëw toog. loolu la. mais seetu bi ñu ngi koy doxal mu waree par lundi macha allah maam Ali muy kàddu yu am solo waaye ma tëjee ak moom rek ci loo xamante ne aussi actualité la ngay jigéen mm. euh, mu dal jamono ji ci kaw ay jigéen kàddu ju ne ñu ngi koy yëg di ko teg seen kaw muy mm. la nga xamante ni euh, xew na fële ca Dubaay mm. euh, dërëm ñu tollu jamono joo xamante ne nit ñi ne jigéen kersa gisatuñ ko si ñoom jom gisatuñ ko si ñoom ak jomm tey bu ñu demee dool jamono jooju surtout yàqante bi ak xawante sutura jigéen valeur bi mu amoon ñu bëri ne dafa dee en tant que jigéen tey yan kàddu ngay yëkkati ci yooyu. Euh, di leen ñaax rek parce que duñ ni dañoo bon. Mm-hmm. parce que bon amul réer moo am. Mm-hmm. ñu ci bari ñi ngi def loo xamante ni dañoo réer ndax alalu àdduna jaru ko. Mm-hmm. te ba pare éducation de base bi dafay des. parce que boo amee éducation de base. Mm. ah mara naan du la tax a naan fóotit. li Youssou Ndour Youssou Ndour wax na lépp. fulla mooy tukki jom mooy tukki mais fulla mooy ñibbisi. sori kaw. Mm. bu mu tax a def loola warul def. Mm-hmm. parce que loo defee sax fudul Dubaay day yëgsiwaat fii senegal ah, mm-hmm. te nit ñi bu njëkk sa yaay bu lay tàggat dalay tàggat ci jom. Mm-hmm. la sa deret fu nga juddoo jomb jomb. lii jomb naa koo def. feek nit du def ñetti yooyu. Mm. jomb naa lii rus naa lii ku ma ci fekk kooku loo def yow la mais su fekkee tàggat nañ la ko à bas âge. nga am jomb jomb. am looy rus. mara naan du la tax a naan fotit buñ la tegaloon jalu néeg ay xaalis jamaa or ak lépp sa dignité moo la war a gën a loo mën a am. samay sœur lañu euh, te du seen bon. kenn jàppew leen nit ku bon. mais dañoo réer gindiwaat leen indiwaat leen ci société bi wax leen ñu wàcc sur terre. parce que daray àdduna jaru ko. li ma gis man. daray àdduna jaru ko. ndax àdduna yàggut. fi ngay juddoo fi ngay deewee benn la dara lu ñaaw xaju fi mhm. dara mais man balaa meewu ma leen ba tey rek mais nag dinañ leen banaan ci benn côté aussi mm-hmm. parce que gis nañ ni jamono ji ñëpp ci ñëpp ci gisandoo loolu muy matérialiste bi nga xamante ni aussi mi ngi ci xare jigéen ñi loolu moom foog ñu nangu ko moom parce que am na quoi <laughs> ba ci sax wala ngay bëggante ak nit ña ngay xool lan nga am lan nga denc bëggante te yàlla tax sax amatul amatul aussi lépp matérialiste moo ko teg moo tax ma ne rek ñu delluwaat ca base ba mm-hmm. xam nga bu njëkk mm-hmm. sunu yaay dañu daan tàggat boo tolloo 12 ans sa yaay day jaay gerte wala mu jaay marché mhm. yow ku jigéen ki dalay jaayloo ji jaayuloowu pour ut loolu xaalis mais mhm. dalay yee won la ne mhm. boo demee ba dëkk bi metti demal nga jaay parce que man mii di wax ni dal na ma bi mu sama jëkkër gaañoo ma xool xaw ma fu may dem te duma dem ñaani kenn sama buy laa defar ak sama bisaab ak sama jinjeer sol sama kilo di topp géej gii galaaseer laay yenu di dem géej di jaay ci lay ci lay ci lay fay courant ci laay lekk man sama rakk ak sama doomu nijaay ju ma yor fii ci kër gi kenn musu maa may 1000 francs ma di ci nekk di ci ne ba ba am ci xaalis si jaayum euh, jus boobu parce que damaa jëndoon sama machine di defar samay sachet jus di jënd samay pipette bu ma ak sama siso bu ndaw yor bu géej gi kenn du fi naan jus te jaayuma la ko deux heures laay dem ci géej gi bala maa wàcc ci géej gi timis mujj gi affaire bi di metti sama dënn bi ma arrêté dem defar sama kees fële ca Brioche Dorée ba di jaay sandwich ak lakk jën mhm. bu fekkee tey sa yaay tàggat na la ci loolu mhm. que ni boo gisul ku la jàppale da ngay dem taxaw mhm. ut pour jàppale sa bopp doo dem jaay sa ngor mais su fekkee ne yow rus ngaa jaay ndox rus ngaa jaay jën rus ngaa jaay sandwich rus ngaa jaay beñe te rusuloo jaay sa bopp nañu xoolaat si éducation de base bi bu njëkk sa yaay sa maam nga daan bokkal kër suñ la bëggee wax dara dañuy lépp ku ma am ndey ku ma amul ndey soo nekkee borom xel dinga xam si lépp bi lañuy jaarale pour yee mais loolu yëpp amatul ak bëgg am ak bëgg lu yomb li cheveux yi seer yi mhm. bi daray àdduna jaru ko mhm. daray àdduna nit ki boo demee ba pedd sa dignité mhm. xamatoo yaay kan dellul fa nga jóge yomb na si bët parce que nee nañ yoon ñaar àdduna ñaari yoon la yoon bu baax ak yeen bu bon léegi su la bon tëwee àndal ak ña bon su la baax tëwee àndal ak ñu baax parce que tey jii bu ma bonoon hmm. soo dendeeg man facilement dangay bon parce que damay jàpp ni man da yow da jàpp ni man li may def moo baax voilà lay xeeñ hmm. Hmm. léegi yow su fekkee ne man damaa baax boo ma jigee tamit kazalika comme ñun ñun jigéen ñi ñu ngi bëgg a perdre suñuy valeur ci ñi ma ko war a wax. Mhm. parce que du ñëpp laa ko war a wax. Mhm. am na ci ñoo xam ne ñoo tax góor ñi respecté tuñu bu njëkk danga daan gis góor jigéen jaral ko lu ne. Mhm. mais léegi tamit comme war nañu xoolaat suñu doxalin. parce que liñ daan nëbbu lépp mu ngi ne fàng ci mbedd mi. comme nan lañ ñuy respecté comme ñun jigéen ñi ñoo war a toog ku ci ne xool dugg soruk xool man a kan man la kan fan laa juddoo fan laa bokk ban deret laa nekk mais fekk mënuñu ràññet la lool. lii am di am. Mhm. parce que mara naan ku mu tax a naan fotit. Mhm. bu robinet ibbee nga ñaaw nañu liggéeyi waay te bàyyi caaxaan. nañu liggéeyi te bàyyi laa digle nañu liggéey gëm <laughs> seen bopp. Mhm. parce que nit boo gëmul sa bopp doo mën a dem fenn. nit da ngay gëm sa bopp xam sa bopp. xam ki nga doon ay Dubaay ak fii ak fee yam. foo nekk xam ni man diwoo ma jur. ñaari goro ma jur ma juddu ñetteel leen. te li may samay tànk ci àdduna mooy sagal leen yëkkati leen. wutal mm-hmm. suñu doom wooy ëllëg mm-hmm. parce que ku dul xalaat ëllëg lu la neex defan parce que tey ñun ay yaay lañ mm-hmm. mun nañ jur président mun nañ jur ku ne yaay diw moo fi defoon lii maamu diw moo fi defoon lii loolu jigéen bu ne war nga ko daw rawatina ñu nekk jamonoy internet waaw loo fi def cent ans lii la image du retraité du màgget du <laughs> buuse du raf tey ngay def nongoloo ñaata at la dee. wallaay 2006. ba tey mu ngi mel ni mu ngi fii bougé wul mhm. voilà mhm. keneen ak keneen ñëpp koo xam ni rek yow sa image image du màgget du retraité du fof li ma leen wax. Mhm. ñun jigéen ñi nañu xoolaat jamono ji ah ñu ngi bëgg a tidde suñu ra suñu xale yi nga xam ne ñoo juddu 2000 bu 2010 ñooñu daal ñooñu bëgg a jaaxal. ñooñu la ñu war a woowaat ci ruq mën a kan. voilà xale yi daal. Uh-huh. seen doxal mi ngi bëgg a yàqal seen bopp. Mhm. macha allah ñu ngi leen di ñaanal bu baax yal na yàlla soppi leen muy kàddu yu am solo yoo xamante ne xëy na képp ku koy bàyyi xel lekk di nga ci jàng jëriñu ci te loolu rek la ñu bëgg ci li nga xamante ne moo di jotaay ah, muy kàddu yu am solo waaye tey ban salon nga defaroo ah xanaa salo fa xale bi nekk intiwit di sama rak eh. bébé fa moom day defar bopp day defar kanam eh. xale bu ndaw la nag amagul sala amul dara mais mhm. mi ngi ciy góor góorgóorlu ñoo bokk ndey ak baay mhm. waaw mhm. ku soxla mu dem defaral la ba mu baax euh, moo jàpp ci kanam gi ak bopp bi ba sénégalais yi mën maa xool ne xam nga ni man moom góor gu rate la tey kay xa tey bee faa am na nu mel def na ma daal madame daal def na madame madame naka madang rek madang waru waru pël fuuta ba madang jaay madang waaw def ci code amagul Ah. célibataire la ah, maa koy ah, tooñ. ah ok pour man daa xam daa am fu mu jàpp quoi pour ñu côté ko. jàppagul dara <laughs> jàppagul dara di sant di am mbégte bu baax nag. jàkkaarloo yow ndax nii. Mhm. yow soo ko defee fierté lay doon ci man. Mhm, mhm, ndax tubaarkaal dama dama daan dajeeg yow ci làmb ji. wallaay dëgg ngay reporté lu neex. maanaan la jàppal saa yu ñëwee fii ñuy waxtaan dama lay jàppal. bàyyi parce que nit loo gëm yàlla fekk la fa. tey ji yaa ngi góorgóorlu ba Sénégal buzz jox la teg la bopp yàlla na ko yàlla yokk. amiin amiin yàlla saxal la fa. ba nga am sa yëfi bopp def loo xam ne daal ci mhm. li nga li nga kaw a sa njort daal ci mhm. li nga bëgg ci aar bi yow it yàlla defal la ndax yaa ngi bay sa waar yow it sonal naa la ndax ah, heure bu nekk yee naa la ko déplacé la ko ah, ngay sama xarit yambalal ma lépp ah, ma koy mm, ñaanal sama rakk nga sama rakk <laughs> nga may gërëm euh, Papis Diop sama moom it euh, sama frère la Papis kenn du moom waaw sama frère la <laughs> fii lay toog di waxtaan ak man ci mm. xel ak ci lépp parce que àdduna moom noonu la rek mhm. di gërëm géegi saw jatu géy sama rakk mi nga xamante ni moom it ci kër gi la ne mhm. mooy fobeere ba mu na man pomp ma buusu ma lépp moo koy def mhm. jatu gay séeri la Jool yaay xaali du ay foo kooku mooy defar kër gi ba mu naagis waaye di gërëm sama borom kër monsieur fay tamit fay Biram Penda waagaan dugu dugu waagaan xànji si waagaan waagaan Kumba Sàññaan waa moo fi ne temps ñaareel xew na de. bu ah da ngay laaj. Eh. monsieur amul duñu moromu kenn dégg man man maay lépp may aawo maay ñaareel maay ñetteel maay ñeent. yaa ngay wax nii yëpp ay waxu baab sa bopp la rek xew na de. <laughs> Ah, xewul lépp mën a. Ah, lépp mën a. lépp mën a maay ñaareel. tay gisoo dëkk bi lépp polygame la ñuy wax. waaw parce que xam du dara lu dul bokk wërsëg. ñu yaatal géew bi. parce que yokku xeetu kii bi la rek. di gars yi kii fi ko kal est-ce li ngay wax nii gëm nga ko. ba a ko gëm man ñaareel laa di. Hmm. man ñaareel laa léegi nag lépp laa nekk parce que xam lu tax ku nekk ah. li nga nekk yow gëm ko rek nit jigéen da ngay gëm sa bopp mhm. aawo yi ñooy lépp seen jëkkër ñaareel ñooy lépp seen jëkkër ku ne sañ nga ko. wallaay dëgg la ah soo ko defee mu neex waaye boo fi nekkee di xàjjale bii <laughs> laa bee laa. dangay sonn doo sonn de. Hmm. <laughs> di nga gën a sonn doo sonn petit sonn grand sonn ngay sonn. <laughs> grand sonn ngay sonn kii rasulaay uh-huh. mais noonu la daal man maay fay biram penda waagaan ma dama fay fay biram penda waagaan dugg dugg waagaan. Uh-huh. moo ma dooleel. Mm-hmm. jàppale ma ba ma mën a toog dal. mën sax waxtaan ak sénégalais yi lu ñu mën a jariñoo ndax wax bu yeetewul mhm. diglewul ay nax la te ñu ngi góor góorlu daal pour mhm. jàppale suñu rakk yi jigéen yi réer mhm. ak suñu frères yi nga xamante ni tamit ñu ci bari tukki rek la gis pour tekki ñooñ tamit ñu jara wax tekki du ci tukki du ci toog fii ci ngëm-ngëm la ak pas-pas am na ñu dem fële tekkiwuñu dara am na ñu toog fii tekki am ñoo xam ne dem nañ mais Europe bu fi waaye jële Europe boo ñëwee fii ñoo la koy wecci waaw waaw lan moo tax na xale yi gëm-gëm rek ne ne ku tukkiwul doo tekki man mosuma yëg ay avion uh-huh. su dul TFM mosuma yëg ay avion uh-huh. te pourtant ku fi indi euro boo ñëwee ma wecc la ci gëm-gëm la gëm-gëm la nañ toog fii gëm seen bopp uh-huh. travailler Mhm. toujours travailler encore travailler loolu daal laay dénku sama rakk yu góor yi ak yu jigéen yi gëm mhm. seen bopp. macha allah di la jaajëfal di jaajëfal kullu kilifa gu nekk TFM. Mhm. nga xam ni kër goo xamante ne kër gu famille la famille bu neex boo xamante ni ñun ñëpp dañu jàppalante di dimbalante. nuyu Sénégal gépp di eh. bëggee internet waa Sénégal Buzz. di wax ne Sénégal Buzz affaire bi foofu la. affaire bi foofu la fi ñu kal foofu la. macha allah mbégte la xanaa biige sama xarit. biige nuyul ma ko. biige ñu ay Camila séeri Modou Sakho. Uh-huh. ñooñu ñëpp dañuy suivre affaire bi. moo tax ma bëgg leen cee cabaxal pour bu ko defee ñoom it ñu partager seen i nit Sénégal yëngu. Sénégal yëngu. Mm. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di kontaan ci yéen bu baax waaye tamit mbokk yi ni ñu ko defee rek ah tey si sa dërëm la ñu dalal fii ci Sénégal Buzz 221 seqoon ak moom waxtaan mu doon waxtaan boo am solo waaye ni ñu koy defee rek di kontaan bu baax a baax a baax ci jàkkaarloo ak yéen mbokk yi jox dig daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf. incha